waaw tey de dañu am kontante bu bu mag di recevoir suñu benn partenaire ñu koy wax EDICO mu benn ONG EDICO mooy éducation et coopération donc coopération dans le domaine de l' éducation bi nga xam ne ONG espagnole tey nag ñu am mbégte di dalal directrice générale bi maanaam mu jóge ba Espagne ñëw Sénégal ñëw di ñu nemmeeku di ñu rendre visite ànd ci nag ak directrice des programme bi ànd ci ak directrice Sahel beeg directrice pays euh, programme pays bi. parce que ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ëmb ONG boobu ñoo ñëw loolu retenir suñu réew ne dañuy seet si bala ñuy def dara dañuy ñëw nuyoo ak autorité réew mi ñi nga xamante ne ñoo ŋànk njàng meeg njàng ak euh, njàngale mi. parce que ñoom seen intervention du ci njàng ak njàngale rek am na yeneen domaine social santé ak yooyu yu ñuy yu toppatoo. mais dañoo ñëw tey pour def benn forum bu mag ci njàng ak njàngale ci Sénégal mu jaral leen ñoom ñëpp ñu ñëw te bi ñu ñëwee dañ ne bala ñuy def dara parce que forum bi du tey suba la mais bala ñuy def dara mooy ñëw nemmeeku autorités yi waxtaan ak ñoom déggoo ak ñoom ci li ñuy def. te bi ñu ñëwee ministre bi sant ñu tey nañu nañ leen recevoir ma recevoir leen ak directeur de la planification bi nga xamante ne moo yore mooy coordonné suñu programme bi. bi ñu waxtaanee weccoo ay xalaat gis nañ ne EDICO de ONG mun nañ wax ne du mag bu mag a mag a mag comme yu kii yi mais nekk na ONG bi nga xamante ne am na njariñ pour suñu réew am na njëriñ pour euh, suñu politique publique yi ñuy def fii parce que seen apport dafa direct day dem directement ci localité ba xool yan problème ñoo am de manière concrète mu régler ko mais nag EDICO ne dafay bëgg aussi di waxtaan di wecc ay xalaat di favoriser daal nit ñi xalaat yi ñu am ak yees yees yi ñu bëgg a def yeesal suñu système bi ñu invité ñëpp ñu seq système bi am ci xalaat def ci ay recherche def ci ay liggéey ñu invité leen ñu wax seen xalaat dékku ko ñu dékku ko résultat yi fay génn nag ñu xool nu ñuy gën a lawale ñoom li ñuy doon dimbale Sénégal nu ñuy gën a lawale seen gunge ci suñu système loolu da si dafa am solo nit ki réew bi doo ñëw rek ne danga koy imposer li nga bëgg damay ñëw ci éducation rek dama naan lii laay def ñoom dañoo ñëw ne doona dañuy dékku d'abord suñu xalaatu réew suñu xalaatu réew mooy universitaire yi mooy sommité yi nga xamante ne ñu ngi ci dans le domaine de l' éducation mais aussi li ñu gën a kontaan mooy ñoom dañ ne dañuy invité yeneen ONG yi nga xamante ne nekk nañ fi ñoom nekkuñu en concurrence mais dañoo bëgg a boole seen i doole pour gën a mën a am taxawaay doo xamante ne dinañu gën a mën a jariñ donc ONG yooyu dañ leen di invité déglu leen aussi ci li ñuy def xool ñoom buñ leen mënee jàppale aussi par rapport ak ñoom seen savoir faire ak seen expertise donc ñu boole seen i doole loolu lënkale seen i moyens loolu day gën a tax ñu gën a am njariñ ci ci seen liggéey